benn groupe whatsapp bu ñu bokk ñun ñëpp euh, bokk ak suñuy nawle la am ay commentaires yu fa am euh, ñu rapporter que ministre Ndeye Tické transféré ko conseillé ko mu def erreur bu ñu mel jël ay ndaw président yóbbu leen si yoon muy loo xamante ni euh, ñëpp dañ koy ñaaw ñu ñu bokkal parti ak ñu ñu bokkut ak parti tey jii lii nii c'est premier mu ngi soog a xew si parti bi depuis que parti bi bi mu sosoo ba léegi. Macky ndam yi mu am Thiès yëpp lii mi ngi fii soog eh, xew te kan moo ko fi indi Ndeye Tické mi fi ñëw 2016. man du ma délégué xaw ma lan moo xew si audience parce que ba si audio yiñ ma yiñ ma tagal sax amul benn audio boo xamante ni tudd naa si turam moo tax man sama ñëw sax wuy si daf maa jaaxal man en personne. kon loolu li muy wund mooy tey ji Tické taxaw na si si si si si ñàkk mën politique am si faiblesse am. am na ñeen rëkk Thiès doon xas président di wax président lu mel ni xeme moom ministre la teraanga gi mu yor président moom moo ko jox te portewul plainte ñooñu mu doon lu ñu jaaxal tey nga jël ay ndaw yoo xamante ni seen lép président la seen ñaq président lañ koy jox seen wér gu président lañ koy jox seen seen seen lépp président lañ koy jox nga jël ñooñu di leen yóbbu di leen xoxotal pour ñu dem ci kaso. tey dañoo amoon ak dikk ak sunu benn kilifa ci politique muy le ministre madame Ndeye Tické Ndiaye Diop. ñu ñëwoon fii ci police waaye yàlla def na ci euh, ndox mu sedd ab réeroo bu amoon la jóge ci ay wax yoo xam ne dañ ko ko yóbbul loolu nag indi woon dikk waaye lépp jeex na ci jàmm. convoqué nañ ñëw nañu wuy si ba nu wuy see bon entendre nañu wax nañu lu ñuy wax affaire bi jaaxle naa si trop Macky Sall war na taxawaat si APR ñu ndaw APR yi ñun dem bay yóbbu ay ndawam police di leen xoqatal non vraiment man. jaaxle naa. APR biir kees pour ñu juboo mooy maanaam euh, ki ñu fi bëgg a def responsabilité responsable APR ñu ne moo fi nekk pour l'instant si biir réseaux sociaux yi mooy euh, ministre bi ñuy wax ti Tické kooku bu dee moom moom moo mën a yore doole APR mënul lool mu APR duñ juboo mukk si keroog ba keroog ñuy dee. parce que lii def nañ ko Augustin Augustin dékku na lu ne Abdou Mbow dekku na lu ne si Dia wax nañ ko si réseaux sociaux yi lu ne mais dafa muñ kilifa la xam na ni moom mooy politique. lu ne war na koo mën a dégg mais tey jii mais madame la ministre waroon na xam ne lii lu ndaw la. dafa am loo xamante ne dafa rafetul ci un parti parti boo xamante ne ñëpp xam nañ ne Thiès dafa am nu mu fi demee ay jeunes yoo xamante ne sacrifié wu nañ seen lépp ndax parti bi nga jël leen tey indil leen ay convocation rafetul tey rafetul ëllëg Augustin Tine ministre des forces armées la fi nekkoon dégg na fi lu ne mësta taxaw créyal fi nit. Abdou Mbow honorable député la woon nekk troisième vice président mësta taxaw créel fi doomu aadama Siré Dia nekk fi DG de la poste dégg na fi lu ne mësta taxaw créel fi nit kon lii dafa ñaaw te lu vilain la te rafetlu wuñ ko tey rafetlu wuñ ko ëllëg